chaque mercredi dañuy waxtaanee ay champion yoo xamante ni peut-être xamuñu leen et pourtant góor euh, euh, góorgóorlu bu baax ci aar yi nga xamante ni ñoo ngi ci tey mhm. euh, dañuy dem seeti ku tudd Daouda Fall moom c'est un vice champion mhm. du monde de boxe chinoise effectivement Pape Cheikh Daouda Fall comme ni nga ko waxee vice champion du monde de boxe chinoise mais Daouda Fall moom ci la nekk ndaxte boxe chinoise te ni boobu projection de couleur de pied mooy loolu moo ci mooy différencier ak bële parce que dafay ànd ak tànk yi day jóg loxo yi day jóg mën nañ dem seetaan euh, élément bi nga xamante ni Maria Siva Diop defal nañu ko ñu ñëwaat ci plateau bi. nekk fédération ñu koy compétir au niveau international donc xale yeeg ñëpp aar boo xam ne baax na pour ñëpp mën nañ ko def muy xale mag tout le monde ah. aar la boo xam ne c'est pas difficile à faire donc mën mu ngoog donc moom c'est un Euh, <laughs> c'est un champion de boxe. <laughs> boxe chinoise. voilà boxe chinoise. lay def mu ngi tudd Daouda Fall. effectivement Pape Cheikh moom mi nga xamante ni eh, nekk na vice champion du monde de boxe chinoise moom titre bi nga xam remporté na ko depuis 2016 mi ngi ci métier ci li nga xamante ni mooy sport bi mi ngi koy pratiquer depuis 2009. Mhm. en plus euh, joxe na ci expérience am bi mu am mais message bi mu bi mu gën a lancé bu mu jàpp ni moom bokk nañ ni message bu am solo la. Mhm. mooy ministère ministère des sports ñu gën a may gët ñi nga xamante ni ñi ngi pratiquer yeneen sport yi parce que. Mhm. Euh, nee na certes euh, li ñuy fi ñuy gën a seetlu ne ñoom la ñuy gën a jàppale mooy football bi wala basket bi ak yooyu te pourtant ñoo gën a euh, apporter euh, Sénégal dara maanaam ay médailles yi ñuy gagné wala yenn compétition internationales yi saa yu ñu fa demee dañuy indi au minimum dinañ indi benn médaille wala ñaar yi nga xamante ni nañ ko indil pour Sénégal nee ñu gën leen bàyyi xel xam naa ministre mi ngi dégg message boobu nekk nañ message bu am solo parce que loolu moo nekk loolu moo nekk. Euh, a invités sur le souvent ñoom ñooy utal seen bopp bi ñoom ñooy lijjanti hébergement pourtant boo laajee boo laajee ci côté ministre. la plupart par exemple bu fekkee da ngay jël taekwondo ak ñoom Balla Dieye dañuy collaborer toujours ak waa CNOS nga xamante ne ñoom ñoo leen jàppale fa la ñuy am ay bourse yi ñoo xamante ne mais par comparaison bu doy boo ko comparé yeneen dëkk yi par exemple kon Balla Dieye bi muy dem ci JO yi ko ko comparé ak catégorie bi mu mel noonu beneen dëkk wala Hollande wala euh, benn on mais ñi ngi defar Marius Ndiaye mais ñi ngi bu bu jëm bu ñaajo bi mais bu jëm ñaajo bi. meurt pas ex. y a tellement de stade de andi coupe. te am na place sax. mais ñi ngi def final le parce muy andi ci ay coupe ay médailles. Sénégal nañu waxante dëgg. Hmm. kenn xamul mu toll. dëgg la Marius Ndiaye la ñu am. mais man non non mais non non non du Marius Ndiaye rek yaa ngi gis ñu ngi ñu ngi waajal ñu ngi waajal fële défendre ma offre mais non ñu ngi ñu ngi waajal beneen c'est-à-dire nga naan doyul waroon nañu am yeneen voilà voilà voilà yeneen mais même war na am. région bu nekk région bu nekk war na am. même même football bi ngay bi ngay privilégié te que psychologique la population football mën nañu sport mën bu fekkee. def na lu bari. Hmm. ñu ngi ñaan ci yeneen région yi dañu war a Sénégal niveau bi mu toll nii. niveau bi mu toll nii war nañ mën a accueillir compétition ah, continental boo xamante ne par exemple Coupe d'Afrique la bi wax na ko nee nañ gis nañu keroog euh, basket bi.

maanaam bu ñu nee ba ay final demi final. ñoom bu ñu amee ay médailles en général du ànd ak enveloppe. ñii si dina ànd mais peut être bokkul ni koy jotee mais même ci football bi sax léegi jamono ji lañu déggatul. ay dina toll si li nga li bokkul boo gisee benn footballeur bu nekk à l' extérieur koy fay wala loo xamante ni prime de match la wala li koy fay foofu bokkul sax mu ñëwee fii fii nag bu ñëwee dinañ leen jox loo xamante ni euh, seen li war la par exemple ay prime de compétition prime de participation yoo xam ne prime de bu ñu accédé affaire Kalidou Koulibaly moo fayoon euh, moo jox remboursé woon kii hôtel beeg yooyu bien vrai que joxe na ci ay précision mais bon dañu war a toll ci euh, évoluer tuuti ci niveau boobu noonu ñu toll américain côté américain côté boobu moom aujourd'hui xam nga nee na le le foot euh, c'est le sport roi mais tey boo ko xoolee ñoom ils ont réussi à développer le basket parce que xam nañ ne basket bi actuellement li muy fay un journaliste aujourd'hui c'est pas moi c'est pas moi téléphone son état Donc euh, le, le, basket euh, américain aujourd'hui paye 10 fois plus que le foot. Tu vois, pourtant, on a investi et pourtant, il y a le foot aux États-Unis. Ouais, eh, qui se développe lentement, mais développé au goût. C'est-à-dire que nous, nous, nous, foot Exactement, nous, nous, par exemple, parce qu'il nous a nous avons nous investissons. Nous, moi, je vois pourquoi nous, nous ciblons le sport. Nous investissons non mais yëpp day metti yëpp day metti moo gën a ëppoon mooy gën a andi ndam boobu ci lañ gën ça va mais lañ gëj a am titre non waaye non défendre wu ma. tànn soo de sa kóor li ngay wax <laughs> mais ex li ngay wax c'est normal. c'est ah. c'est nekk na lu loo xamante ni moo nekk moom la Sénégalais yëpp di ko jàpp ni loolu mooy lu yoon mais défendre wu ma c'est juste parce que damay wax ni ñoom boo leen au niveau du ministère boo leen expliquer boo leen joxe poser problème yi xam nañ ko bu baax mais ñi ngi dañ naan la à chaque fois dañ naan ñi ngi ci les voies nga indi solution ni war nañ mën a gagner accéder ci yenn yenn yenn yenn yenn truc mais tamit moyens yi moom duñu jug ci di ko défendre di di di di ko di ko di ko ñaawlu dafa war a am bu njëkk ba comme ni ngay wax ni ay année quatre-vingt yi Dakar koñ boobu. boobu nag buñ ko puusoon basket bi moo nekk Sénégal. waaw loolu la ñu wax parce que man j'ai fait du basket. Mm-hmm. Mm, yow kay a de Michael Jordan qui était les années 80 90 mm, mm-hmm. avait les playgrounds ak yooyu noonu yëpp donc profiter ci loolu développer d'autant plus que c'est un sport qui rapporte où on gagne mhm. man c'est ma vision des choses aussi ah cela ne pas dire qu'on va laisser les autres sports en mhm. mais au moins ñu mën a jël xaalis bu bari daana ah comme Sénégalais de nature on est des sahéliens on est grand de taille on développe le poids mais morphologiquement je pense que ni il faut pas chercher un plus un égale deux. Mhm. le Sénégal il est grand il est tout naturellement même s'il fait pas de sport. ak athlétisme natation aussi natation aussi investi mhm. au moins on aura habitué ce public. à avoir le bonheur. voilà d'avoir des coupes à défaut du foot. Mhm. maintenant le football aussi comme on dit y a les Sénégalais ñoom ñu championnat yi ci bitim donc mais ni toj suñu Afrique di ñu andil coupe. man je leur chez moi je maam Fatou Ndoye oui euh, Soxala une kañ la. évidemment lundi du am bi ci topp. d'accord invité Exidex. merci madame Traoré bonne journée. voilà donc c'est c'est c'est décidé débat bi ñu ngi ko sport euh, à la une lan moo dal Messi. waaw li Messi dañ ko sanctionné. pourquoi pourquoi nee nañ dañoo jàpp dañu dañ ko dañu jàpp dañu wax ne dafa dafa dafa dafa saaga benn arbitre. Ah. ci éliminatoire yi nga xamante ni coupe du monde la fële ca fële ca Amérique du Sud. ah d'accord donc du du du jouer ay match ci équipe nationale. ci équipe nationale la. FIFA moo ko suspendre quatre matchs. Mm-hmm. mais li ci gën a am solo mooy. Euh, maanaam déjà suspension bi commencé na euh, toujours emporter équipe am bi mhm. parce que ñi nga xamante ni mooy seen concurrent direct yi nga xam ne mooy ñoom déjà assuré nañ seen qualification mu nekk seen mu nekk première une première équipe pour euh, prochaine mondiale yi nga xam ne moo fas yéene am fële ca Russie voilà footballeur yi ñuy parce que à chaque fois tamit dañu wane ni ak FIFA nekku fi nga am talent oui mais toujours nga respecté yenn sanction yi bu ñuy wadd ci yenn monde football actuellement mais boo gisee nii yenn sanction saaga na saaga na saaga na arbitre bi yooyu dañ koy tere ci football impérativement pour ñeneen ñi la pour ñeneen ñi yenn joueurs yi ñu mën a suivre exemple bi mhm. effectivement sécurité bi nekk autour de ñoom pour lan la waaw non mais xam na arbitre yi toujours. bu ah, arbitre bu amee bu amee polémique wala daal arbitre match bu ñu jeexal rek dañuy am sécurité bu ñëw. Mm. dafa saaga jib. saaga moom bu jibee moom. foogoon da koy dóor xam voilà te Messi sax temps yi dañu gis ni. caractère am yaramam daa taal Messi bu xamoon bi muy amoon. léegi peut-être ni mu commencé màgg nag yooyu dañuy yaakaar ni sax euh, gis nañu waa dese nañ leen cinq match tere ko quatre match quatre match moom voilà benn match surtout nga xamante ne match seen match dem dañ ko dañ ko dañ mhm. ak euh, Brésil mi gagné Pérou tamit gagné na match am Alfi ah. <laughs> ah, Félicitations Alfi démb deux regarde xam nga ni day supporter <laughs> voilà bon en tout cas brésiliens ñoom déjà assuré nañ seen ticket pour le euh, mhm. prochain mondial bi fas yéene am fële ci Russie. super mu nekk euh, équipe bu njëkk wala mën nañu wax dëkk bi njëkk a qualifié. voilà macha allah merci Mamadou Ndiaye.